Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf li askan wi di dund mu metti lool ci ambassade bu Royaume-Uni ci Sénégal moom la réew mi quotidien xëyee ni ki tey ji yéenekaay bi xam le ni ambassade bi ci boppam lañu daal di kepp ndax ay doxalinam yu ñaaw ci lu jëm ci traitement demande de visa yi nga xamante ne askan wi danu ko fay déposé xaar wu yàgg wi anam yu ñu leen di dalalee ca màkkaanub ambassade bi ci boppam rendez yi nga xamante ne ngir nga jot ci tamit lu jafe la ba ci sax koppar yi nga xamante ne dañ ko ciy laaj moo tax professeur Ibrahima Bara jopp jàpp ni lii ñaaw na lool leneen li ñaaw yokk ci sax ab tiis mu ngi ci yéenekaay groupe Rewmi Network bi muy suuxab gaal bi nga xamante ne moo yaboon ay migrants ca waaxub Mbuur Rewmi Quotidien di ñu xamal ni kon bilan bi gën naa tiisati ndax li ëpp fanweer ci ay niw moom lañu jote gis te ba léegi marine nationale mu ngi wëyal ay gëstuwam bilan bii di yokk moo tax Vox Populi gis bi moom su na ko ak liy xew ca diwaanub Mbuur yéenekaay bi ne fanweer ak juróom ni ay niw moom la ñu daal di gis ba daal di leen rob ca sëgg yi nekk ca Liberté ca diwaanub Mbuur niw yooyee nag ña nga feeñee ca tefesu Ngaparu ak Joal askan wi wëy di jooy tiis boobe waaye teewul li nga xamante ne kon moom mooy départ yi ngir wutali diwaanub Espagne ma ngay wëy ndax Vox Populi mu ngi ñuy yëgalaat ni lu ëpp ñeenti téeméer ni ay clandestin ñoom la gendarmerie daal di tegaat loxo ci diirub ñaar ci ay fan lu quotidien yéenekaay duppee ko ab sérieux bi nga xamante ne kon mooy xew ci géej gi yéenekaay bi di xam ne ni kon jamono ji lu toll ci fanweer ak juróom benn niw la ñu daal di gis les échos dëggal ko ni kon bilan bi gën naa yokku ndaxte am na lu tollu ci ñaar fukk ak juróom benn niw yi nga xamante ne gis nañ leen jamono ji te yenn ni nag ñu ngi leen fekk ci anam yu doy waar li doy waar kay mu ngi ci biir libération mu ñuy xamal ni suuxub gaal gi xew ca Mbuur mooy dëggal ni coowal Barça wala Barsax bi ab la bi nga xamante ay organisé di Pape Sall ñu gën koo xam ci turu saf nekk rakk ci maire bu mbuur bi mujj nañ ko teg loxo ba mu daal di xamle ni lu ëpp daal fukki million ci suñu koppar jot na ko ngir yeb ay candidat ci gaal yóbbu leen ca tugal mu mel ni ñi namm dem ca tugal tey ji lañu ñu gën a dogu ndax Libé mu ngi ñuy xamal ni gannaaw liy xew mbuur ñi ñi di ko jooy noppeeguñu gendarmerie mujj na tegaat loxo beneenub gaal bi nga xamante ne mbooro la déparé doon wutali diwaanub Espagne xamante ne moo tukkee ci ndajeeb conseil des ministres ni ki démb suñu naataango dañu xamal ni kon njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mel na ni ku weddi kii di Cheikh Omar Diagne li ko waral bokk na ci kàddu yi nga xamante ne moom yëkkati na ko ngir gën a jëmmal taxawaay gu rafet yi nga xamante ne kilifa diine yi am nañ ko ci réew mi yéenekaay bi yokk ci ni moom njiitu réew mi wane na doguwam dëgg ngir fexe ba ñëpp daal di tënku jox cër ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ŋànk diine gi loolu yëpp ngir ñaawlu li nga xamante ne moom la Cheikh Omar Diagne daal di àddoo mu mel ni yëngal na bu baax Pastef bis bi le jour moo ni xamle ndax nee na sàkku nañu sax ñu daal di tekki ndombal tànkoom ca présidence de la république mu mel ni Cheikh Omar Diagne ci boppam xal la wu tàng jib bi nekk ci loxo nguur gi waaye njiitu réew mi daal daf cee fas yéene taxaw ndax Le Soleil yéene kaay nee na moom Bassirou Diomaye fay tey ji dogu na dëgg ngir fexe ba ñu gën a warmal ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine yi ci Sénégal yéene kaayu na ci prérogative constitutionnelle ak institutionnelle yi nga ne moom njiitu réew indi na ci ay leerlu ak taxawaay wi mu ci namm am taxawaay wi kay laas yéene kay leeral na ko ndax nee na diggante exécutif bi ak législatif bi nga xamante ne ñagas na lool moom président Bassirou Diomaye Faye mel na ni ku ci namm indi ab dal ndaxam dal dina am am déet ak lim ci mënti doon yor-yor bi mu ngi ñuy xamal ni assemblée nationale moom ala kuliyal dinañ ko tas ëllëg fukki fan ak ñaar bu fekkente ne yegg nañ ca muy tas assemblée nationale ni ëllëg enquête déclaration de politique général du am fukki fan ak ñett bu ñu koy xaar ci biir yéenekaay bi njiitu réew mi mel na ni kon kuy déggalaat li nga xamante ne moom mooy mbébétam fexe ba stabilité daa di am diggante pouvoir législatif ak exécutif pouvoir législatif boobee nga xamante ne ci bopp ba Amadou maam Diop moo fa nekk l'observateur fësal na tey li nga xamante ne moo tukkee ci tontu bi njiital assemblée nationale ci boppam daa di jébbal njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci lu jëm ci tas assemblée nationale bi ci boppam ne amu ci benn objection Mame Diop yamu ca ndax fàttali na njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ni fukki fan ak ñett ci weerub septembre bi ci la ñu jàpp déclaration de politique générale te loole Bassirou Diomaye Faye waru ko fàtte moom njiitu réew mi mu ngi ci xët bu njëkk Sud Quotidien yéenekaay bi dañu xamal ni Diomaye ci boppam génne na yat wi ci crise bi nga xamante ne moo am ci poste recteur bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ndax professeur Amadou Ali Mbaye daal dina ko fay jëlee tabb ki nga xamante ne mooy Aminata Diallo moo nekkoon vice recteur bi ci université bu Ndakaaru ci ministère de la santé moom mu mel ni recrutement yaa ma neex moo fa xew bis bi la jour xëy tey dañu xamal li tukkee ci làmmiñub Ibrahima Sy mi nga xamante ne moom mooy joriñ ji kàddu yi mu yëkkati ci kanel ñaaw na lool te foo ko natt weesu na ko ndax nee na saa yu jotee CV day xool ndax am kooke militan bu Pastef la mu mel ni ministre de la santé Ibrahima Sy ci boppam ci le quotidien jéem na ragg deram waaye tey la gën a tilimal Mendy moom bëgg na tilimal ndam li nga xamante ne équipe bu Sénégal am na ko barki Dembo Ndiaye réew mi sport di xam ne ni kon ñoom waa Burundi ci boppam dañoo kalaame arbitre bi ci yoon ndax penalty bi nga xamante ne daf ko jagleel équipe bu Sénégal équipe bu Sénégal mu mel ni léegi kenn ragalatu ko Walf Quotidien moo jàngatee nu nu mel ndax yéenekaay bi nee na bokk na ci li ko waral tànneef yi nga xamante ne jàggut Aliou Cissé di ko def ñàkk xarañte ci kanamu but yi ba ci sax ay yi nga xamante ne Sénégal